Hello, ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters. Welcome back to my YouTube channel Sencours TV to learn English with Mustafa. dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di Sencours TV ngir jàng anglais jaare ko ci wolof ànd ci ak Mustafa. leçon bi nag tey mu ngi aju ba léegi rek comme fi njëmoon ci tourisme bi waaye nag ci wàllu waajaayu dem ak yenn vocabulaire yu ñu mën a am foofu ak nañ koy jëfandikoo ci anglais incha allah. How is your preparation for your trip? How is your preparation for your trip? How is your preparation for your trip? waa naka sa wàccaay bi tukki bi yow tukki bi ngay wax noonu sa wàccaay bi nu mu fa demee sa waajaay bi how is your preparation for your trip wàccaay bi mooy wàccaay mooy preparation for your trip mooy tukki mooy noo bi trip trip trip it's getting better it's getting better lan mooy it's getting better léegi ñu xool bu fekkoon ne dara dañoo jot ñu laaj ñi na ngeen def lan la ñu war a wax ci anglais dama naan am getting better bu fekkoon dama feebar nga may laaj naka sa yaram bi dama naan la am getting better maa ngi tene wala nga ne am feeling better maa ngi teme ba léegi ndax maa ngi sentir lu gën li ma doon sentir am feeling better léegi better bi la ñu amaale pour exemple noonu maanaam it's getting better donc kon bu dee ci leneen bu ñu ne it's getting better lu dul nit da gis ne mooy daanaka da nga ne lépp jàmm rek how's your work it's getting better mooy mu ngi normal mu ngi dox I think I will get my passport. I think I will get my passport. I think I will get my passport. yaakaar naa dinaa jot sama jàll wax yaakaar naa dinaa jot sama jàll wax passport passport mooy jàll wax yaakaar naa mooy I think ah man de waajaay boobu di yaakaar naa dinaa jot sama passport next week I think I will get my passport next week mooy. next week mooy week mooy ci ayu bis bi nga xam ne moom lañu jëm mooy ci ayu bis bi di ñëw next week do you speak many languages do ndax dégg nga làkk yu bari many mooy lu bari speak nag mooy wax mais bu dee ci làkk da nga ne do you speak mooy ndax dégg nga dégg nga maanaam do you know exemple bu ma nee do you speak many languages ok ndax dégg nga làkk yu bari wala ndax dangay wax làkk yu bari speak many languages yes I speak many languages I speak many languages many languages waaw dégg naa làkk yu bari language, languages, age, ages, many language. Yes, I speak many language. waaw dégg naa lakk yu bari sax. what we have to bring with us. waaw man de xam nga lan laa comprendre gul sax. what we have to bring with us. bring what we have to bring with us. lan la ñu war a indaale maanaam. ok maa ngi bëgg a tukki waaye lan la ñu war a yóbbuwaale bu ñuy tukki sax ndax lépp la ñuy yóbbuwaale dañ fi bàyyi dara ok what we have to bring mooy lan la ñu war a yóbbuwaale with us mooy ànd ak ñun bu ma ne you are with us mooy yow yaa ngi nekk ak ñun I am with you man maa ngi nekk ak yow lan la ñu war a indaale I don't know but ok I don't know. but I don't know, but I don't know, xamuma de waaye wax ji àggagul de I don't know mooy xamuma I didn't know mooy xamuma woon ay will know mooy dinaa xam do you know ndax xam nga do you know ndax xam nga. do you know me ndax xam nga ma hmm. I don't know but xamuma waaye I think we can bring everything I think we can ah, yaakaar naa ne yaakaar naa mën nañoo indi lépp maanaam mën nañoo indaale lépp mën nañoo yóbbaale lépp donc bring mooy jëlee ci barab mu jëm si ci beneen barab bring don't forget to bring your bag bul fàtte indiaale sa sac ok yaakaar naa ne mën na ñëw indiaale lépp bu ñu tukki yaakaar naa lépp mën na ñëwaale ok I think mooy yaakaar naa we can bring everything mooy yaakaar naa mën nañu indi lépp de pourtant bu ñu tukki yow xamoo dara be aware about this you know be aware about this ok comme listen to me wala let me tell you something comme déglu ma wala xaaral ma wax la dara yii boo ne be aware aware aware about this aware aware he be aware about this gis nga xamal lii déglu ma wax la be aware mooy xamal lii aware aware be aware I am aware mooy yëg naa cool I'm aware about that yëg naa loolu ok exemple bu ma ne I wasn't aware about it I wasn't aware about that mooy yëguma woon loolu I wasn't mooy I was not aware about that loolu yëguma ko woon I wasn't aware listen to me déglu ma let me tell you something xaaral ma wax la dara be aware about this na yëg lii ma wax la xamal lii li ma lay wax nii nanga nga déglu bu baax a baax donc kon aware bul wax aware wala awari aware aware traveling by car is different traveling by car is different traveling tout trouble amoon nañ ko ci deuxième leçon bi xam si leçon bi nekkoon ci wàllu tourisme ok traveling by car is different is different tukki ci damar dafa wuute wax ji daal guddee dafa wuute ok there is no difference mooy amul benn wuute there is no difference between me and you dara moo ñu wuutaliwut we are one benn lañu we are in the same family ñun ñoo ngi nekk ci même famille there is no difference between you and I wala you and me dara doxul suñu diggante ok traveling by car is different from traveling by train ok tukki ci oto ah mooy traveling by car ok is different mooy dafa wute ak you know it's different from traveling by train by train train train train dafa wuute ak tukki ci saxaar train saxaar tukki ci oto dafa wuute ak tukki ci saxaar from traveling by train you know from sam gi nag nekkul bàyyeekoo ci mbir waaye comme that's different from that this is different from that lii dafa wuute ci lale ok from different by train traveling by train and airplane airplane airplane airplane airplane airplane airplane airplane and also by airplane car tukki ci oto is different from traveling by train dafa wuute ak tukki ci saxaar and also by airplane wuute tim ak tukki ci fafalnaaw airplane Fafalnao, airplane. Fafalnao, it's your opportunity. Those who speak English and would like to speak Wolof to learn some Wolof words that we are giving them here. You know, you have two opportunity to get whether to learn Wolof or to learn English at the same time also. Okay. One third of is by car. Once, once, The traveling if by car once bul wax one wala once once once once traveling is by car bu dee tukkee daamar bu dee ci daamar ngay tukkee bu dee ci loolu ngay tukkee What's the traveling if by car? You know, what comes since component since that the true you know we have to accept that ah comme que gannaaw loolu mooy dëgg ji nañ ko nangu rek mooy once that's the true also we have to accept that once the traveling is by car bu fekkee bu dee tukki gi damar la sometimes they don't want you sometimes they don't charge you sometimes they don't charge you you know they don't give you a lot to do they don't charge you a charger so charge charge ch- charge sometimes they don't charge you bu dee tukki bi moom ci daamaar la ah léeg-léeg moom duñu la facture duñu la teg dara duñu teg benn daan sa kaw lu bari ok bu fekkente ne ci daamaar la bu fekkee da ngaa bëgg tukki tukki moo xam ne yaa ngi koy defee ci daamaar once the traveling is by car saa bu fekkee tukki bi moom ci woto la wala ci daamaar la sometimes they don't charge you you yenn saa yi la duñu la facture la teg daan yu bari sometimes mooy yenn saa yi sometimes they don't talk to you yenn saa ñoom duñu wax ak yow. sometimes I call them yenn saa dama leen di woon you know they don't charge you many things to do they don't charge you many things to do yenn saa once the traveling is by car they don't charge you many things to do dégg nga many things to do yu bari yi ngay def maanaam duñu la teg ay daan yu bari yooy def wala ay chargement yu bari yooy def many things to do I have many things to do mooy am naa lu bari lu may def please I am sorry today I will not be available maa ngi jéggalu de tey moom du ma disponible because ndaxte I have many things to do at home dama am lu bari lu may def kër ga I have many things to do ok I have many people to call ah dama am ñu bari ñu ma war a woo I have many or a lot of money to pay maanaam bul fàtte de whether the traveling is by car bu fekkee tukki bi moom ci woto la wala ci daamaar la they don't charge you duñu la duñu la facture duñu la daan many things to do mbir yu bari yooy def ak bii muy or walla a lot of money to pay wala sax xaalis bu bari booy fay déedéet they don't charge you even a lot of things to do duñ la teg yu bari yooy def or they don't charge you lot of money to pay wala duñ la sax facture xaalis bu bari boo di fay a lot of money I have a lot of money mooy am naa xaalis bu bari oh I need money dama soxla xaalis pay me my money fay ma sama xaalis oh I need money dama soxla xaalis ok a lot of money to pay wala sax xaalis bu bari booy fay bu dee ni tukki bi ci daamaar la once the traveling is by car but why but if you are traveling by airplane if you are traveling by airplane but if you are traveling by airplane huh but if you are traveling I'm traveling maa ngi tukki you are traveling yaa ngi tukki okay but if you are traveling by airplane waaye booy tukki si fafalnaaw moom booy tukki si fafalnaaw moom lan mooy fafalnaaw mooy airplane you are flying you know but waaye if you are traveling by airplane booy tukki si fafalnaaw hmm. booy tukki si fafalnaaw moom lan ngay def bring your necessary things first you know bring your necessary things na nga andi yi mënula ñàkk